ngir boole suñu kàddu yëkkati muy benn baat rekk sama suuf ma yokk sama armeel booba mu ngi desoon ci ginnaaw armeel yi lu toll ci douze virgule sept hectares ñun suñu càppateef moo nekkoon ngir Pikine bañ a amati jafe-jafe yu jëm ay sëg ci biir bu yàgg ñuy jox ñu douze virgule hectares yëpp waaye jarul fàttali ndaxte waxoon nañ ko waxaat ko suuf si loxo da cee dugg ay loxo def cee dugg ci anam boo xam ne teguwul ci yoon ba tax na daanaka dañ koo saax saaxee woon loolu sax xam naa dinañ ci ñëwaat ndaxte faaw li fa des ñu audité ko ndaxte waa Pikine ñoom ñoo ko moom ndaxte boo yéegee ca kaw fii ñu tuddee Sidy Wane Gaynde ñi dëkk ci gox bi yëpp xam nañ la fa xew année 2005 ni ñu ko saax saaxee du dëgg du yoon du dëgg yoon ay benn nit ñaari nit ñëw suuf soo xam ne ñëpp a ko bokk Pikine amatul espace ba pare am ay yeneen jafe-jafe yoo xam ne dafay soxla suuf ay quelque nit di ko saax-saaxee loolu moom moo tax ñu jógoon ne ñu ñun li ñu bëgg mooy ñu jox douze virgule sept hectares yëpp bu ko defee danañ mën a am espace bu yaatu yokk ci armeel yi mu ànd ak ay aménagement def fa benn espace parking espace parking cimetière bu Yoff mu ngi tollu ci

Euh, aménagement yi mel ne bloc administratif ànd ak li nga xam morgue moderne parce que ceux qui amul euh, armée euh, jàkk ji amuñ armée amuñ Dominique amul morgue ñu am fii benn morgue bu mag bu moderne loolu moom moo nekkoon suñu càppatéef ñu topp ci di ci dox di ci wax ba le 11 août 2021 président de la république Macky Sall signé décret boo xamante ni moo jël 4 hectares 18 ar 54 sancaar jox ko waa Pikine ngir ñi mën cee yokk armée yi 11 ak tey mu ngi toll ci at ak fukki fan at ak fukki fan gannaaw ba signé décret bi gannaaw bañ signé décret bi itam ñun yëkkati woon nañ ay kàddu leneen kat Nous sommes le président de la république parce que nous rek la mën nous. def ñun dañu bëgg a defar yi compétence maire de la ville donc nous li mu doon laaj mooy suuf souf, maire de la ville amul suuf amul territoire donc nous avons mënoon def dem ci maire Pikine Ouest conseil municipal Pikine Ouest nous ñoo def délibération bi ñu mën 4 euh, hectares

ak ñett yu teg juróom-ñetti weer dafay feesaat calcul boobu nag ci li ñu ko teg mooy bàmmeel yaatuwaay bi mu ngi toll ci zéro virgule soixante-douze mètre carré te ñun doon nañ atteindre ay pic wala ay moyennes yoo xamante ni ay quatre mille inhumations euh, l'année maanaam ñeenti junniy nit danañ leen rob denc leen suturaal leen fii at mu jot bi ñu defee ñun suñu mandaxee li mu ñu jox mooy quatre hectares dix-huit ar

Euh, président Macky Sall ni koy fàttaliwaat état bi ak autorité yi nekk fii nii yëpp loola ba mu amee ñu nekkoon kon comme suuf lañ bëggoon suuf si domaine privé de l'état la de foncier DP cinquante jot nañ ci léegi nag ah liggéey bi ci ñun la des ñun waa Pikine te ñun waa Pikine dafa am ñoom suñu kàddu kan nekk ca booba di maire de la ville ci lañ sàkku jataayu waxtaan ak moom mu audience ba ñu demee toog ak moom waxtaan ci lañu ñu xamal ne AGETIP ñëw na def étude technique yi nga xamante ni foofu damay wax am na ñoo xam ba léegi ñu naan fii dafay am ndox loolu xalaat la xalaatu nit profane maa xam koo xam xaram màccul ci mbir yooyu noonu nekk tamit lu base ci observation empirique maanaam lu ñuy teg bët waaye loolu science science li mu wax mooy ñaari étude technique yi nga xam moom mooy suñu référence benn bi sa date de décembre 2010 ki ko def mooy Samba Sougou maguma taal sugu dëkk fii Pikine Ouest boobu ki ko commandité woon mooy Pape Malick Anne moo nekkoon boobu maire Pikine Ouest nee 2010 na dañ ko war actualiser waa AGETIP étude bi ñu mujj a def tamit dafa ñëw ne coût lii la 1 milliard 359 mille 042 francs 1 milliard 352 mille 3 euh, 359 mille 0. 42 francs loolu moom mooy bi nga xam moo war a dugg ci xaalis ngir ñu mën a yokk armeel yi gannaaw am nañ suuf gannaaw xam nañ bi nga xamante ni moom lañ ci war a dugal ci xaalis ci biir xaalis boobu am fukki million ak benn yu teg as tuut yoo xam ne dañ ko war a dàmpee ñii di fa doon bay mbayum dër muy ay beneen bi di hangar bi ngeen gis nga xamante ni ci conférence de presse yi ñu def dikk nañ dikkaat yi anam yi mu ko amee tegul ci benn yoon